julli ci sangu-sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme li leen ko doon waxee rek El Vision Média tabarakallahu wàcc ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di tiwaawoon li fi tax a ñëw nag mooy bëggal sopp yi tabarakallahu ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ci bitim réew ba a suivre gàmmu te mënuñu ko suivre tabarakallahu El Vision wàcc ànd ak équipe technique bi yëpp ñëw nag pour fësee leen a dëktal li nga xam ne moom la ñuy taataane ci gàmm gi leer yi ñu fi bi nga xam ne moo ziaraat yu tedd yi nga xam ne mi ngi fi am yëpp ñu fas yéene leen ko toppal benn par benn incha allahu rabbi di leen ko jox en direct fii ci Tiwaawoon mu mel ni ki gis nga fi ñu jaaroon jaaral leen ci li nga xam ne mooy xabru yi tabarakallahu xabru Serigne Babacar Sy jaar fi nga xam ne mooy xabru si Alxaaji Mansour jaar fi nga xam ne mooy xabru si Alxaaji Malick si Alxaaji Abdou Dabba ak Serigne Babacar Sy yëpp tegal leen incha allah jaaral na leen fi nga xam ne mooy zawiya bi tabarakallahu jaar fi nga xam ne mooy waañ soxna yi tedd yi tabarakallahu mu mel ni nag su ngeen ñu gisee fii ñu taxaw nii tabaarakallaahu ngeen xam ne nag ah fii moom mooy champ de course nga xam ne dañuy wax ne daanaka boo ñëwee Tiwaawan ba ñëwee dafay mel ni sax sa gàmm des na ndax ku nekk xam na ne fii la góor gu tedd ga daan toog wallaay ndeysaan Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum bu ñëwaan toog fii jàkkaarloo soppe yi jàkkaarloo njaboot yi tabaarakallaahu ñuy waxtaanal leen ci yonent bi waxtaanal leen ci mag ñu baax ñi tabaarakallaahu ànd ak mu di leen nampu ñi namp mu di leen ba ila macha allah moom mi nga xamante ne tabarakallahu eh, sëriñ babaka daf ko xool ba mu neex ko mu ne eh, ko di nga gàddu àq de wallaay ndeysaan di nga gàddu àq xaw ma li mën a tuddee sëriñ cheikh ahmed tidiane al maktum moo tax xaw ma mu ne ko parce que nit ñi yëg ya, ya, nit ñi yow rek la sopp wallaay ndeysaan sëriñ cheikh ne ko ah am mukk soppi bu la bëggut na nga gis ku bëgg cheikh ahmed tidiane al te bëggut ki nga babakar si na nga gis bëggul babakar si te bëggul ki nga xam ne mooy Serigne Ahmad Al Maktoum ginnaaw bi mu fi jigéen nag fi koo xam ne fees na dell place mat sëkk li mu doon di wàlluy kaamil di aalim di allaama di fahaama di darraaka barakallaahu nga xam ne man naa ne cofeel ga woon ca Serigne Cheikh Ahmad Al Maktoum loolu lépp walbatu ko ñëw fi ki nga xam ne mooy Mawlaaya Seydi Mouhamadul Moustapha Sy xafidahullahu wa ayyadu wa raa nga xam ne moom la ñuy ndamoo di ko safoo di ko tiitaroo tabarakallaahu duñ def lu di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi tabarakallahu di ñuy nampal ñun itam ñuy namp mu di ñuy nampal ñuy namp ndax itam suñu cofeel dafa jégg dayo ci moom waaye ndeysaan mom, itam loo ko sopp sopp rek mu gën laa sopp amul lu dul njaboot gi njaboot gi itam amul lu ki nga li nga waxtaan bi discours arab bi tabarakallahu insha allah da ngeen ko jot naka noonu itam waxtaan ci wolof da ngeen ko jot moom léppam yiw la tabaarakallaahu ni ñu leen ko waxee woon incha allah noonu leen ko fas yéenaa defalee di leen ko toppal benn par benn benn par benn benn par benn ba keroog gàmm gi jeex incha allahu rabbi kon nag in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah ci kanam incha allahu rabbi